roog la xam nañ déglu Ngagne Demba Touré dégg nga kooku loolu mu daj def sax troisième mandat waaw léegi kooku dina dégg ngeen jàpp ne Issa Diène bu faluwee dina changer les choses dégg a waaw Issa Diène gens qui incarnent le système dans l'administration, administration, dans la magistrature, dans les forces de défense et de sécurité, dans la classe, dans une certaine classe maraboutique, dans certaines zones d'affaires, les lobbies étrangers, les puissances étrangères, notamment la France. Allahu Akbar. parce que le tapis rouge, quel que soit le candidat et quelle que soit la stratégie politique. Allahu Akbar. Non, Bobi, c'est un grand orateur. man buy wax dafa mel ne Martin Luther King mooy wax kii Ousmane Sonko daa ko wax de buy wax day mel ne Martin Luther King mooy wax wala Churchill wala général de Gaulle bi nga xam ne bëgguma sax tudd france mais booy bi xam-xam bi ci nekk te dafa ñemee wax dëgg ku yaakaar ne Amadou Ba bu nekkee président wala bu sonkoo bu ñu indee plan B Sonko ku mu fi mënti teg Macky Sall da koy bàyyi mu ñëw bokk gañe dangay nax si bopp loolu la wax fii. loolu la wax fii wax na ba wax lay lobby tudd marabu dafa am courage kan moo ñemee wax fii di tudd marabu lébu marabu te wax na ba tudd ci euh, marabu parce que ñëpp xam nañ ne marabu yi kenn bëgg ci Ousmane Sonko Pape Alé Niang moo ñu rey chaque jour monopoliser suñu internet vie yëpp moo ko yor te ñeme wax dëgg boo waxee mu ne way euh, sëñ Mountakha indi na tàndarma ina la zina amono waa minu saali xaati wata waataw bil xaqi wata waataw bil sappi tàndarma bi ñu ngi koy ñiimantal ah, suñ Mountakha li mu waroon def yëpp def na ko c'est pas vrai Pape Alé déglu leen ngañ dem ba. waaw. après ñu ñëw ñu ne ngañ dem ba mooy candidat ngañ dem ba ñëwul moo di déglu la tam waaw. yàlla moom jaajëf Fatoumata bu ngeen xeexul ak Macky dégg nga bu leen xeexul ak Macky Sall doon ci génn. il faut donc loolu il faut que ñu intégré a moo tax ma doon xeex pour waaw que il faut que les pour xam ne bu ñuy naan nit ñi xeex mënut a ñàkk. mënut a ñàkk. xeex neexul dafa métti. allahu akbar waaw waaw lii sara si suratul xare badar waaw kay dafay wax kama axrajaka rabbuka xare badar mu bi ma lay génnee bi sa waaw ci bu bëri si jullit ñi d'accorduñ ci woon ndax dafa métti dégg nga allahu akbar non booy bi du nit quoi te Issa Diène maa ngi koy gërëm parce que dafa jël micro am jox ko Ngagne Demba Touré rek noppi soxlawul nga koy poser question xam nga man d'accord ma kuy wax di wax inalisi na amono wa aminu saali xaate wata waataw bi la xaat mais gis nga Ngagne Demba Touré fii sax daf laa génneel aaya d'accord mu ci aay parce que loolu mooy mentalité lappatu waaye aaya bi lu tax mu baax parce que man xare badar dama koy wax chaque jour dama leen di wax ne yonent bi ci boppam mi ngeen di wax inalisi na amono xaarul yàlla dafa jël jaaseem mu dem guerre moom la la aaya boobu la la génn mu ne la ba dara mu ne la xeex munul ñàkk kon Pape Alé Niang bu ñu waxee notre seul choix c'est le combat démocratique kon Ngagne Demba Touré nee na Pape Alé Niang waxuloo dëgg da ngay fen parce que parce que Pape Alé nee nga benn xeex rek moo des mooy ak suñuy carte démocratie te Sénégal ñëpp xam nañ ne démocratie amu fa Pape Alé Niang bu ñu lëndëmal Ngagne Demba Touré nee na da ngay fen ngeen baal ma nee na yonent bi ci boppam dafa dem xale Badar déglu leen. il faut que le bouleversement soit surtout violent. violent su violent par rapport par rapport à l'agressivité non mais par rapport au choc et à la manière. allahu akbar le boy, bi lamine bi moo neex <laughs> par rapport au choc et à la manière il faut que manifeste il faut que violent comme le mu wax violent non boy, bi du nit. Sénégal dafa war a ci lii ba faw. dégg nga du jaar ci carte boo xamante avant carte bi amul loo yëngatu. dégg du jaar ci carte Papa Alé Niang. il faut que les gens intègrent ça. waaw. pour comprendre que. waaw c'est pas par des stratégies. ay stratégies que nous à régler les choses ma dalé ci ne. dégg nga Sénégal bokku na ci ko tardé 63 ans après l'indépendance ñuko tardel ko tardé waaw. mooy heure buñ tollé ci benn tournant bu décisif. waaw que les gens régler les choses définitivement. waaw nit ñi dañuy fokk ne colmatage. colmatage ak takalé mo koy régler taqale rek taqale rek wala ñu xeex. en 2011. waaw. nit ñi dañoo mobilisé wu seen mobilisation exceptionnelle boobu noonu. taxawaay bi war ba candidature Abdoulaye Wade waaw kay. kon kon Macky moo fi nekk. pour folli Abdoulaye Wade kese ba dal ci Macky waaw.

loolu moo tardé Sénégal bu jógee boo leen waaw kay waaw. comme lu waaw. ñun waa Pastef ak surtout ñi gëm Ousmane Sonko am ay sénégalais yoo xam ne ay militants wu liberté publique lañ ak xam ne. man maa ngi yuuxu maa ngi yuuxu de am na sénégalais yoo xam ne bu ne candidat waaw. Idrissa Seck waaw Khalifa Sall waaw Karim Wade uh-huh. Pape Djibril Fall Anta Babacar waaw bu ñu demee élection dix neuf na cinquante deux pour cent waaw wala ñu ne Idrissa ñoom il faut saluer la démocratie sénégalaise les sénégalais ils sont menés dans parce que Amadou Ba gañewul daal sachant que ñooñu amul kenn ku ciy génnee détenu politique amul kenn ku ciy réglé le sort de waaw. amul kenn ku ñuy réglé problème du Sénégalais waaw. alors que ñun ñun li ñu intéressé du loolu. ok ay Sénégalais yi dañ dem voté yóbbu seen carte mais Sénégalais entre kii war a tànn. ok. ban système moo war a changé moom wax vote rek la wax. donc. waaw. Macky Sall bu ngeen xeexul moom bu parvenir à réussir ça. il teg na ñëpp ci processus électoral waxna deug de. conseil constitutionnel teg na fa bëgg. waaw waaw. commission nationale de recensement des votes teg na fa bëgg. waaw waaw. préfet gouverneur yi. administration territoriale. waaw. mercredi bi passé def na chamboulement sur plus de 100 postes. dégg 100 postes. moy gouverneur yi préfet préfet yi lépp la changé. mais kooku li mu bëgg xam na ko il est constant dans sa démarche. merci merci li mu bëgg xam na ko il est constant dans sa démarche moom lay wax chaque jour Macky Sall dafa am fulla bu ne lii laa bëgg da ciy dem. Serigne Mountakha booy bas dañoo am fulla waaye ñun waa Pastef ñoo ñun ñoo ñàkk fulla wax naa leen Serigne Touba bu wàccoon Serigne Touba bu wàccoon ne day bokk ci élection Sénégal ak Macky Sall Macky Sall dina sàcc élection yi gañe ko loolu la leen Pape Alé Saawaay wax parce que fépp la verrouillé conseil constitutionnel euh, gouverneur yi Sénat fépp Pape Alé kon boo jugee du ñu wax ay affaire carte ak démocratie danga ñoo yëpp wala da nga amul xam-xam wala yow danga nga am benn plan B boo xam ne da ngeen a bëgg a jaay Sénégal mais booy bi booy bi xam na fi ngeen jëm yéen ñëpp te du leen ci bàyyi bu soobee yàlla nañ déglu nañ ko déglu. ñun ñëpp ñoo constat wu ñoo nekk fii daal loolu day repoussé élection yi di jaay pexe mooy gañe Macky nga pexe. foofu laay daal pareegul. waaw def na interview bu extraordinaire. mais suñu waaw kay. système puissance France. non booy bi xam-xam rek la. waaw xam-xam rek la. gars yi Fatou Binta. concentré wu leen te ngeen bàyyi Fatou Ndiaye. waaw.

dégg xam nga lii xam dafa am brigade yooyu am ay avance bëri brigade yi dafa am xam booy bii biir ay gendarme commandant yi naan leen wàcc leen waaw donc ñoom ils ont dañoo yaru dañuy dégg ndigal deuxième force mooy ñooñu ëpp gànnaay dégg nga troisième waaw mooy ñoom defaruñ dañuy yàq. defaruñu. dañuy dañuy défendre. c'est-à-dire ñun ñoo bëgg a waaw ñoom dañuy défendre dégg nga. loolu moo gën a yomb parce que défendre moo gën a yomb. défendre moo gën a yomb. ñooñu nag moom moo làqatu ci ñoom. mooy dis dispersé wu. discipline discipline waaw. il faut ñu yaru mooy xam lan mooy sa sa objectif waaw. sénégalais bi nga xam ne. waaw commerçant ki nga xam ne élève la. waaw gars yi laaj leen partagé leen lii am na solo de. ki nga xam ne transporteur la. waaw. ñëpp ñu génn ci ci zone Carrefour yi. zone Carrefour dégg na ñu xam ne am na lu fi xaw ñëpp génnandoo. parce que loolu mooy. waaw waaw sur le leen di jox stratégie de. information waaw mi ngi ci tension. ci tension dégg nga xam ne dafay am équilibre de la allahu akbar. man de terme boobu defe naa maa ngi koy doog a dégg. équilibre de la terreur <laughs> non booy bi booy bi dafa am xam-xam xam nga la mooy équilibre de la terreur ñun waruñu toog Macky Sall di ñu napp di ñu tiital di ñu xokkatal ku lay tiital di la xoqatal man ni mu ko daan waxee mooy Macky war Sonko warul bu nekkul ci jàmm Macky warul nekk ci jàmm yàgg naa ko wax lan moo tax Mame Mbaye Niang mi ngi këram ah jabaram di ko voleel suus muy muy muy mu nekk ci mu nekk ci jabar ji pare ci jabar ji dem ci rakku jabar ji mu koy voleel suus Mamour Diallo nan lay nekkee ci jàmm kër bi dugg naa fa mu nekk ci jàmm Ousmane Sonko di nekk ci terreur maanaam sonn ñun Pastef ñu sonn équilibre de la terreur gars yi terme la boo xam ne ñëpp na ko ñëpp war a utiliser ku lay fitnaal da ka ko war a fitnaal équilibre mooy ñoo war a tolloo ci tiit te discours bi commencé na tiital Macky Sall ndax booy bi dafa am xam-xam gis nga li mu leen di wax ci commandant yi défense brigade est-ce que Pape Alé Niang dina toog di leen faram fàcceel lii Pape ale Niang live am yëpp jàmbat la Pape Alé Niang xam musul la defal ben cour magistral man de boy bi damay deg ay terme yo xam dum ko musa deg fen Babacar Touré lu bon bon amna xam-xam ndax mom day def investigation indi la date bi date bi mais papa ni ko waay xam nga man ni seen wax yi daf may jaxal ay ball pudi man man seen yi newon na len lo len fi def ludul deug dina ñëw daliko daliko dindi genre wax yo lay wax mais boy bi dang koy déglu da ngay am xam-xam déglu len il faut que ma tegal len discours bi yëpp après may doog a ñëw sama analise bopp gars parce que discours bi c'est un discours très riche ñu ngi ci digg bi li ci des bëreetul déglu leen rek. équilibre de la terreur. mu leer la leen ne ñu àtteelu neexul Macky Sall dinañ. waaw Papa Alioune. pare pare guma ci moom de. kon yaru. jaanamoo waaw. waaw. da ngay comme da xam ne dañoo am unité de commandement. waaw. il faut que say force nga disperser ko. leen il faut ñu tasaaroo. mooy li Ousmane di a concentré wu ci benn lieu. waruñu tase rek place de l'obélisque. ay barricades. waaw day yomb. mooy xam nañ loolu comme deuxième bag rek. fépp taalandoo fépp. donc il faut réew mi yëpp fépp tàkkandoo. waaw Pikine Thiaroye. c'est Liberté 6 HLM fépp Sénégal yëpp. nit ñi ku nekk sa koñ yow yaa mën a mën a wax sa booy koñ yi ngeen jël sa booy koñ yi waaw mi ngi joxe stratégie. bien sûr mi ngi joxe stratégie. yëppal bi ñu ne